Thank you Bébé maman, bébé maman, bébé maman Arizo, maman Delay woo yaay borom nooy mbaytoo sa doon yaay borom El Vision Médias bébé maman bébé maman bébé maman maman Aris la woo yaay doomu ndeyu Ameth Diop yaay jigéenu Ameth Diop. njaagaay sa yaay ñang baaloo na set de na set na set yan ñaar bu leen bokk bare bi kii day dem nii kii dem nii kii góos kii duraat ah gaaw leen waay xale bi yëngal jamonoy ñëw de sekk daanaan kenn du moom de cëy la mel ni téeméeri yëpp ci benn butéel kenn du waali moo woy ba woy am naa xaalis bari naa doole waa du dëgg-dëgg soxor na waa kon balele baleel rek séeri nag bu ñëwee du ma ko présenté de baleel ñi dem doo ci bokk moom yow gën a la fomp rek merci merci merci et fier de vous merci oh kontaan naa ak Waly Seck rek nekk naa fi buum rek eh Awa yow moom jàmbaar nga jaru ko jaru ko jaru ko jaru ko morso bi damay indil ci gàllankoor fompal seere na gaaw waay loo leen bàyyee doyul de na lépp di gaaw cay sekk ndaana man de chaque jour rek damaa war a nekk sax faramareen moom laa doon moom laa doon yee faramareen doomi buur laa doomi góor laa faramareen jaga sama samaya tona sama samabai faro mari yesa oi ken do wale se ara ko i don't care man ay wale atta fis don faro marin, de wor ken do mom de jaga suñu bay tona suñu bay ngane la pare pare ngeen atta def tek len yep kii ni mu des ndogu bi bu kenn toog nag man rek maay toog. acca prenez vous dem leen ca waañ ba. loo bëgg a ginaar jugal jugal jugal jugal. croissant beurre wala. wala brioche croissant bi nag zirik wala bisaab. day am zirik day am soow piir day am bisaab am lépp comme na ma ko defaree woon da ca njëlbeen lañ dama leen waxoon. Mm-hmm. dem leen. jërëjëf

waaw ah, kan moo doon bële nenala gi nii. ah tamit nee naa la pël bu ka jaabare puissance. lan lañ xewle bay bale kër gi nii. waa ko fi ñëw mu ne la ah tamit papa Thion waa kuy yaayam Adja Diaga waa dëgg daa toll noonu kookoo fi wàcc si tey ba tax mu sasatal kër gi ba mu booy booy yaaral. Waly Seck moo fi tax nga bale ñu bale kër gi comprendre oui kaay ana dëkkandoo ay ni moo fi ñëw moo tax ngeen bale kër gi nii ba mu ba mu rafet hmm? lan moo leen leer ne Wally Seck moo fi ñëw tubaab de boo ne ko loo gën a soxla mu ne la preuve te maman tey dafa indi preuve à l'appui dafa bañ ba Wally da woyal son yéen a dégg son bi waa Wally génneel mama ma Aris nooy mooy toosa noonu El Vision Média Wally day ñëw fi tey masha Allah kon baax léegi man maa ci biir de toute façon bu ñëwee man woowa maa ngi ci biir parce que man soxla naa ko sax war naa ko gis ngay que xamoon naa ne doo ci doo ci am benn dutee waay merci beaucoup ciao bi waaw ba ci kanam ngeen may wax bëgg naa ko torop yaa sama yaay coonay sama ba salaamaaleykum. ba ci su neexee day jaaga ko yaa jàpp ci mbaggi waadi feccim li yeer feccim li su neexee ndey jàkko jële yéen a jàpp ci mbaggi waadi su ma génnee ngeen daw wuti ko jàpp ci mbaggi waadi leer na su ma xewlee yaay ngeen jëndi tikkee yéen jàpp ci mbaggi waadi dinaa la woyal xale bi lay ma ne naa yaay mama mama eres dinaa la nji woo ne bul ko gis muy dem mama nga koy seedeel de lu jaaw jaaw jëw baaxul bambay seen mbaaw vraiment reen laa lay wax de doom papa Thione mhm. ak jaaga waaw ku kenn day moom góoru soxna ay dara waali sekk laa gis oh waaye papa coon ndekete eh eh, eh, eh, eh papa coon de lu mu jur njaar la waaye Seydina Aline foo nekkoon ba bi waaye kenn du yow de kenn du Waly Seck lii teg mu tax mu neex ma ndax nekk ci oto ba bari tiitar moo tax mu dugal ma Seydina Aline nii merci de ta part. maa la ko xon maa ko def. ana Waly waale nga doon laaj waale nga nii Maria Sy may sa bigg may sa bigg maar nga xam ni comme jamono teel bàyyi nga ko xel. non non non non la. question bi ma posé baaxul de xaw ma bi ma la posé. yaa dama ne la ana Waly Seck ndax Waly Seck xam nga nit ñi balaa moo gën a guddi heure bi la war a mën a dugg si ñu ndogg si jàmm waaye bu gënee niis nii. nit ñi dañ koy wàllu si te loolu duma arrangé. ma dinaa ko indi rek nga ko war a gëm. waaye allah lim la wayal jar na ay milliards. dafa mën a woy de Maria Sine Mesa Biége mii kenn du ma. mën na woy de weddiwuma loolu waale laa wax. waale ngi nii mama. Oh. déggoo lim la wayal xanaa. wala ngaa sa nopp. ma woon loolu de am na yow mama danga ñooy wala danga ñoo miin mama nga fekk ñu ñu toog aisément di waxtaan suñu waxtaan nga ñëw indi sa son ne Wally Seck moo la woy ndeke dara amu ci ne daf laa invité ndogu. nan gis na sox gis nga soxna ay dara gis bébé mohammed gis bébé Mu. ak bébé moom mi dara dara dara dara amu ci yow mama mi da nga feebar de say bo yow ñu ñu enterré la hôpital mythomane de mom mom nga mytho bi bi nga do mama méré na ko torop man nga xamanteni bama gëjé balé gëjee bale gëj ban ban ané la génné sama yéré bu yagg bi da nga xamné ne def na 5 ans ci ren tayer bama ko ñawaroon sax xamna naa ne na ma mu jël ko ma abiyé ko ni té passé wu man waxuma ya, ya ya eh, la le yow nga xamne dama amé rematu remaat bi suba ba nga may baraj baraj fu ne nga dugg mo lu ne nga def loo ma ko sama àq yàlla na dal fo djublu yalla mo yalla yalla djublu ma wa sa kanam gi ne bal ni sang patay mang lay nuy nga may baña a mu no bay bari jikko da ngay laajte wala da ngay leer leer na ma tay da nga dala ci benn kalpe yow bo amé xaaliss rek xolal kep ku la nuyu do ko sax faale bay loolu ma ne ndax dangay laajte wala dangay leerlu. non damaa bëgg a xam ci boppam. waaw li nga bëgg a xam nag moo tax ma lay tontu xam nga yow dag ma fay defoon benn mbir boo xamante ne nii bu ma metti mhm. te man xale bës laa. Mhm. ñëpp a may wër si àddina. Mhm. waaw. yow la ñuy wër. man la ñuy wër ba fajar dem tëddi. laay dootoo ko man saa man. Hmm. kenn du nelaw. moo tax tey daal nga ignoré ma nii. waaw tey da nga ma fay defoon lu ma metti nag. àdduna bi yëpp toog di ko joobe. ma lii rôle journal. lii loo journal bi ndekete jàngoo pour man intellectuel bu man nga su ma la gisee ni sa comportement macha allah dangaa man sañ sa dégg. mais man boo ma gisee xam ne intellectuel laa boo demee yow tey ni ma la ko ni ma la ko waxee defee woo ko noonu liiree woo ko joxee woo ko noonu gars yi man boo ma gisee xam ni man maay xale buzz man maay xale bi xew man damaa xew loolu kenn naataale wu ko ci koñ ah <laughs> waxatuma laa nag biir Dakar da ngay laaj wala da ngaa bëgg a xam. man damaa bëgg a xam. da ngaa bëgg a xam. nag ma wan la ma xewee. yow maa la gën a xew. man war ma biir déglu li may déglu rek déglu li boo déggee li nga xam ne man xew ma sama yëf la. naka jekk ma la gis. xam ne kuur galaay nga yow. yaa ngi dégg la muy woy am na man ñëpp di wër ma moo ma daf may fekk ba sama kër jël ma yóbbu ma fu ko neex. waaw ah, kooku kooku du bàyyi de. du ay fo. kooku bàyyi moom yi la. ah dëgg neexul ba pare nga nekk ci séeri soxna ay dara. ci kenn day la woy neex na de. kii képp ku commencé jamono bàyyi nga ko xel. waaw waxatuma lang nag ñi mu toppanteel ah, la oto bi ci kanam ah moom doo ngay corne. waaye bi ci ginnaaw de kenn du ko corne. waaye kenn du Wally Seck man ba ma la gisee nii. macha allah nga sañ see nii def sa désiré bu baax eh, la xam bokk nga faramaare man duma morom gone yi dama laa xam ne bokk nga faramaare ni wali déggoo man ma xol suma ko won léegi mu ñëw fi léegi léegi wa man dama bëgg am benn mission bu moma doxal xam nga yow nak say mbir juste motax man duma mëna ya a ak yow daal mais ni nga waron commencer nak dal suma ma ñëwee nuyu la nga fay ma ci ndiek ak non non suma fasul won sama kanam xam nga yow da nga gaaw a te suma fasul won sama kanam da nga eppal lii ya, nga ya. ma wax tay man li lay wër ndax damaa def lu rëy bëgg am lu rëy lu may def ba Wally Seck way ma loolu du problème dégg déggoo ma la man la bu la neexee léegi waaw ma woo ko téléphone jox la ko xam nga lan la bu leen ñu fontoo maman mi ba mu leen wax ne leen di leen indi Wally un waroon ngeen xam ne waxul dëgg damay dégg maman yow xam nga ne Wally mii ñoo dëkk moom fii ci koñ bi programme bu ñu fiy def ma moo koy joué man bi ngay wax ay Wally xamoon naa ne waxoo dëgg ñii nag nga mën a nax yow li la dal ba jàmm la mën ah war ngaa yàqloo nit ñi seen temps soo ba léegi bale noo leen fobeere loo leen lu ne nga def loo leen ah. du découpage bi a coupé. xam nga tey Wally Seck la leen andil bu subaa xaar leen Pape Diouf wala ngeen xaar Alsaan Mbaye wala ngeen xaar sax kudul moom parce que yéen moom da ngeen a nooy bopp lu leen maman wax a ngeen ne waaw chaque jour mu def loo leen benn affaire boo xamante rek mënoo leen koo bañ ba ngeen dalee dëkk ak maman ba léegi mënu leen koo xam yow moom xam nga lu ma lay xamal demal nga gaaw defar léegi même pas dix minutes dégg nga lu ma jamono dëkkandoo aca demal Fatick yow gaaw a. son bi benn la. eh xoolal na nga tëj sa gémmiñ dégg nga la wax. son bi benn la xoolal sa vaccin bi rek nga mel ne ku marine sa bopp yi. après kii dina ñëw. waaw comme Alassane Mbaye dina ñëw Waly Seck ngoog moom ak Ameth ñoo ànd waxtaane leen ko dégg nga yow jaaral nii. pertoo leen ci de waaye bàyyi leen rek Waly trompé nga ma de Ameth. ah mais mu indi la waali bi nga xam ne lu mooy dëgg kenn du yow de waali dàqu laa way kuy wër ndaanaan lii ndaanaan ci moom mën ci yow yoon boo ko poursuivre rek réussir waaye trompe ngeen ma loolu